am na nag sax ak fierté boo xamante ne ni doomu réew mi def nañu ko ci comme ni nga ko waxee rek Omar li nga xamante ne moom di kan bi nag bilan euh, bi euh, sénégalais yi def la ñu daal di ñëwaat ak euh, yéen nee nañu nag bokk nañ ci meilleur attaquant yi ak ci meilleur défenseur yi deux buts dong lañu ñu encaissé benn bi nga xamante ni Eswatini jox na leen ko mu nekkoon 1-1 ci match bi nii ñu génn waaye tamit nag gis nañu défense bu baax bi ñu yor bi ñu yoroon ak seen góor bi ak lépp en tout cas daal donte sax gis nañ ni amoon nañu ay quelques faiblesses mais n'empêche que qualifié nañu pour dem ci kan ci six match Amina Ndiaye ñu ràññee ci 39 joueurs yoo xamante ne wane nañu seen bopp bu baax waaye suñu match bu mujj ak Swatini 1-0 la woon ba temps di waaj a jeex Cheikhou Kouyaté daal di ñëw nag indi bu dégalisation bi mu nekk loo xamante ne ni lu am solo la. lu am solo la comme ni nga ko waxee rek ñu bari yaakaaroon nañ ne match boobu noonu pedd nañ ko ñu bari commencé woon nañu di baisser les bras mais heureusement rek Kouyaté dal di ñëw daal di ñu ciy génne instant bi nag dañuy xool ba xam 3 5 2 bi nga xamante ni moom la Aliou sa tegoon lu baax la am déet pour ñu continuer ko ba kaan bi. am na solo Amina Ndiaye waaye anniversaire u génnub àdduna ki nga xamante ne ni moom moo fi nekkoon président olympique de Marseille di Pape Diouf. démb lañu ko daal di daal célébré foofee ca këram mu am ay témoignages yoo xamante ne nii ay ñegal ñaaleem ay xaritam def nañu un an ginnaaw ba mu génnee àdduna moom moo Pape Diouf ñu gënoon koo xam ci monde du sport bi euh, at euh, ren gi nag nga xamante ne ci la ñuy féete anniversaire de décès euh, nee nañu Pape Diouf daa ressuscité bu ñu waxee ni dafa ressuscité nag waxuñu ko lu dul ci dimension bi nga xamante ni moom la témoignage yi génnaatee ci moom mu mel ni que mi ngi dund ba tey suñu biir témoignage yu bari yi nga xamante ni ay am di jàmmam def nañ ko ay mbokkam def nañ ko ku ci mel ni gën nañ ko ci ràññee ku ci mel ni Etienne Mendy tamit gën nañ ko ci ràññee ñuy wax lu baax ci ki nga xamante ni moom moo di Pape Diouf yal na ko suñu borom yërëm allahuma amin amina weer bi nag mooy weeru avril weer la boo xamante ne nii kuñ ci wax dara bu yeboo nga tee ci bu baax balaa nga ko gëm ndax dafay bari ay poison d'avril moo tax suñu làmb ñëw ak ñun ci diggante Modou ak ak Khadim ga ñu ne Modou dafa am problème ak Khadim ga ba sax quitté na Rock ba sax quitté na Rock Énergie loolu la ñu bind ci poisson d'avril yi nga xamante ni journalu suñu làmb day faral di ko def chaque année heure bu dikkee rek danga naan dëgg la boo xoolee journal bi ci biir boo liiree page 4 danga naan li ñu wax yëpp dëgg la ndax ni nga xamante noonu lañu tegee scène bi ni Khadim Gadiaga dafa doon imposer Modou pour muy ñoom di lundi au vendredi di entraînandoo ak mbër yi nekk biir Rock Énergie Modou du ko def da daan dem ca diwaan la Grosse loolu merloo Khadim Gadiaga euh, ba mu amande ko un million de francs fa Modou bañ loolu ba ni ñu amee problème Modou Lo décidé ni day ubbi écurie boppam daal di koy tuddee euh, ki nga xamante ni nag moom moo di Biram Ñing loolu la ñu bind ci biir Poisson d'avril bi daal di koy tiitare Modou Lo ki kit Rock Énergie yaakaar naa ne Rock Énergie moom amee Amina Ndiaye dëkkuwaayu Modou Lo la ndaxte poisson d'avril la boo xamante ni ku gàtt rek ku gàtt xalaat war nga koo mën a gëm waaye ba tey ci journal bu suñu làmb mu daal di ñëw ak ñun ci combat bi war a am la 4 avril diggante Lac de Guiers numéro 2 ak Eumeu Sène ki ci yëkkati ay kàddoom nag mooy Landiang di bras droit wu Eumeu seen boroom dof du wér tay shinga li mu wax nag Amina nee na pare nañu pour Dana de Guerre numéro 2 ci plan yëpp nag. pare nañu ci plan yëpp foo mënti xoolee rek pare nañu pour songu Lac de Guerre 2 daal di amaat ci ndam amaat ndam ci kawam une seconde fois waaye nag gis na ni Lac de Guerre dina bëgg a xeex cette fois ci dina bëgg indi xeex dina bëgg indi làmb mais bu boobaa na fekk euh, na jàpp ni ñoom pare nañ ko ci boor yëpp en tout cas daal nee nañu ñoo ngi préparé waale seen combat ba tey euh, à l'aide de Boy Niang ki nga xamante ni moom moo di Ama Baldé. waaw dëkkuwaay la bu yaatu dëkkuwaay la boo xamante ne nii jaadu na sax ñooñu ñëw di ci jàpp parce que ay mboq lañu ay rakkan ay mag ak rakk lañu ci beneen côté bi tamit di côté Lac de Guiers numéro 2 Balla gay numéro 2 mi ngi koy apporter soutien wam ki nga xamante ne nii moom mooy guy gi itamit mu ngi koy apporter soutien wam mu nekk soutien yoo xamante ni ay soutien yu am solo la parce que nag pour ku ci nekk daan sa adversaire dangaa jëw booloo ak sa morom boo ko ndey boo ko bàyyi ndaxte Lac de Guiers bëgg-bëggam mooy daan Eumeu seen Balla Gaye bëgg-bëggam mooy daan Bombardier guy gi bëgg-bëggam mooy daan Reug Reug bokku euh, bokku objectif pour le moment euh, liñ naan euh, kuy wut fu mu fanaan ak kuy wut ku ko gunge tëjal néeg bi du leen boole Balla Gaye instant bi mi ngi entraîné wu pour mu bëgg a daan ki nga xamante ne moom moo di Bombardier Eumeu Sène mu bëgg Lac de Guiers 2 tamit daal di daan Eumeu seen guy gi tamit am combat ak ki nga xamante ne moom moo di Reug Reug ñoom ñëpp ñu daal di bokk seen géej waaye di jàppalante nag ba tax na Balla Gaye 2 ba tey ci nataal bi nga xamante ne moom la ñu wane ci journalu suñu làmb mu daal di jàkkaarloo ak ki nga xamante ne moom moo di Lac de Guiers 2 bi xam yokk courage di ko wax ni pareel di ko war ni enfoncel te gëm nañ loolu bu dikkaatee ci géew gi tamit loolu la koy waxaat. combat bi combat Lac de Guiers numéro 2 ak Modou Lo ba la woon ba tey ci libération Amina mu daal di ñëw nag ak ñun ci li nga xamante ni moom mooy mbirum explosion yi am ci dëkk bi ci wàllum gaz parce que nekk na loo xamante ne ni faaw ñu xool nuñ koy defaraatee. ndax ci dëkkuwaay bi mu nekk dëkkuwaay la boo xamante ne nii am na ay doomu dama yu fa ne. comme ni ko waxee Ndiaga Dia xaw ma nan lañ koy njagaja ja waaw am na explosion de gaz boo xamante ni amoon na fa nag ñu toog ci ay fani fan fani fan fan euh, sapeur nekk ci saa su nekk mënul fexe ba fay ba ni mu fayee sax askan ba seen xel la dalatul ndax dañuy yaakaar ni li ko tàmbalee woon mën na koo indiwaat waaye ñi nga xamante ni nag ñoom ñoo fa dëkk ñoom ñoo yëkkati seen kàddu euh, ndax dañoo gis ni Euh, nguur gi dafa bëgg a nangu ci ñoom euh, li nga xamante ni moom moo di suufu njaga ja alors que dafa am ay origine am loo xamante ni moo nekk ci ginnaawam ku ci mel ni Aïssatou Sow Omar Aïssatou Sow nee na ginnaaw ba jëkkëram génnee àdduna dafa def lu nekk pour installer li nga xamante ne moom moo di direction Fortesa euh, Ngalo Ndiaye nee na nag au delà des terres dañ ñoo bëgg a fi nga xamante ni moom moo di seen suuf gi comme ni ma la ko expliqué léegi ba pare daal di leen di bëgg euh, bëgg a jële fa jàq bi nga xamante ne moom lañ fa tabax euh, ngir ndax nee na ñu jàkk ji dafa toog ci benn puits de gaz maanaam teenu gaz waaw maanaam daal jàkk ji fa mu toog noonu nit ñi dafa julli ci alal ju baree bare bare bari lañ ko tabax loolu moom moo tax ñu bëgg ko délocaliser may gajaga nag moom euh, nee na euh, dañ nee naa bëgg a génne non seulement fi nga xamante ni moom moo di suuf si waaye tamit bëgg a jël lépp bépp héritage boo xamante ni seen jur yi bàyyee loon nañ ko Moussa Gajaga moom mi nga xamante ni moom moo di responsable Forteza nee nañu nee na xamuñu sax lan moo waral loolu jékki-jékki daal di tàq ndax dañoo merloo jinne yi ci def du ñaaw bi nga xamante ni moom la ñu bëgg a def. Amina Sénégal dafa am ay cosaan dafa am loo xamante ne ni yàlla suñu borom daf ñu ko may muy ay ressources yu baax a baax nañu euh, nañu sàmm ressource yooyu noonu ndax bu ñu demee bañ ne ci réew mi am na foo xamante ni am na ay gaz ak yu ni mel. nañu xool naka lañu koy jéem a utiliser exploité ko mu jëriñ réew mi waaye bu ñu ko jéem a jël di ko saafarñe ba tey ci vox populi mu daal di fësal professeur Raoul ku ne gis na jëmm ji jamono ji coronavirus di gën a lëmbee ci réew mi ak sax ci bitim réew daan nañu ko gis muy indi ay solution moom la journal bi daal indiwaat. professeur Raoul waaw ba jàngoro coronavirus tàmbalee ba suñu joon yàlla tey yi euh, du ñu jóg ci du ko gis muy def ay sorties am na benn moment nag boo xamante ni defoon na silence waaye ñëwaat na euh, ci euh, différent variants yi wu Covid 19 bi maanaam anam bi muy ñëwee saa su nekk ndax gis nañ ne première vague bi si ñu mu indi ak deuxième vague bi du benn waaye nag instant bi nee na nañu tiit ci au sujet des animaux maanaam mala yi daal instant bi nañ leen tiital ndax demee beneen boor. dafa demee beneen boor muy ay kàddu yoo xamante ne nii boroomu xam-xam dëgg moom moo ko wax ndaanaan dëgg moo ko wax waaye Jibi Guèye itamit Jibi Guèye Ndiaye daal dinañu koy convoqué nag fële ca digg mu war wuy ji ay laaj yu nga xamante ne dinañu ko fa tontu. dañ koo convoqué pour mu ñëw euh, tontu ci laaj yi nga xamante ni moom moo ko fay xaar waaye nag euh, moom nee na mi ngi xaar euh, convocation boo xamante ni dañ koo bind te nañ ko war a binde convocation boo xamante ni dañ koo tamponné te nañ ko war a tamponné après mu daal di dem ji. ki nga xamante ne nii tamit moom la ñu jàppoon mbirum terrorisme lañu ko daal di accusé woon foofee ca diwaanu États-Unis d'Amérique journal bi ñëwaat na ci moom. journal bi daal dinay ñëwaat ci ki nga xamante ni moom moo di Ousmane Tunkara activiste ba nekk ca diwaanu États-Unis d'Amérique yoon tegoon na ko loxo ginnaaw ab plainte bu nguuru Sénégal doon ko accusé de terrorisme ak bëgg faagaagal ki nga xamante ni moom moo di njiitu réew gi moom nag yëkk ci na ci ay kàddu nee na xamul ku ko xamul mais waa Amérique xam nañ ko bu baax xam nañu moom mooy kan xam nañu ci lan lay yëngu xam nañu léppam démb ak tayam nee na nag moom jullit la képp koo bëgg a faagaagal wala dara baal na la ko mais nag du nangu képp koo xamante ni da ngay nelaw ci diggu boppam. da ngay nelaw ci diggu boppam l'observateur dañu koy daldi tëjee nag mu def enquête bu yaato yaatu ci ki nga xamante ni moom mooy Cheikh Wade. di koo xamante ne ni Amina yàggal naa taxawal réew mi yàgg naa takk ndombal tànk réew mi. enquête sur Cheikh Wade comme ni nga ko waxee moom moo nekk sem euh, Semga euh, bi nga xamante ni nag daal dinañ koy euh, démasqué ci enfance am fële na la ci diwaanu Ngaye Mexe drame de sa li nga xamante ni nag amoon na ay njuñ njaag ci ci biir ci biir dundam maanaam mu mu metti mu neex témoignage yi nga xamante ni nag waajuram bu jigéen daal dina koy def si moom. défense des magistrats magistrats yi nag ñun ñoo taxaw Amina Ndiaye am benn combat boo xamante ne nii mëne nañu ko. magistrats yi boobu ba tey ñoo ngi xeexal justice pour que justice bi gën a am liberté ñu gën a mën a def li nga xamante ni moom moo di seen liggéey tey nag journal l'observateur daal dina ñëw ci choix sélectif des combats yi nga xamante ni moom la ñu tëral accusation euh, yi nga xamante ni moom par accusation partielle yi nga xamante ni moom moo am ci euh, plaidoirie yi ak défense bi loolu yëpp journal bi daal dina ñëw ak am na solo torop Amina moo tax l'observateur daf ko daal di jeexalee nag ak li nga xamante moom mooy équipe nationale en difficulté Ferdinand Coly ak ki nga xamante ne moom mooy Titi Titi Camara yëkkati nañu seen ay kàddu di ko jëmale ci ki nga xamante ne moom mooy le sélectionneur national di Aliou Cissé. ginnaaw deux matchs yi ñu jógee contre Congo ak contre Eswatini ñu bari euh, dañoo jàpp ni kii nii di Aliou Cissé dafa réer ndax dafay euh, tâtonner rek li nga xamante ne moom moo di ay onze de départ am 3-5-2 euh, bi nga xamante ni teg nañ ko gis nañ ci ñaari match yëpp ni Euh, xaw naa am ay gàllankoor yu mu ci def am na ñu commencé di wax naan Aliou Cissé na daal di rendre tablier bi jox ko keneen laataa ñuy dugg ci kan bi di amaat beneen defar defet wala ñu ñuy teel a éliminer ba tax na Ferdinand Coly mi nga xamante ni nag ñoom ñaar ñoo bokkoon jamono ak euh, Titi Camara ñëw nañu ngir euh, jàppale ki nga xamante ni moom moo di Aliou Cissé ci coaching bi waaye lu ci mënti am daal gëm-gëm dong moom mooy indi ndam. gëm-gëm mooy indi ndam Amina waaye ak mën. ak doon ndaanaan ndaxte yaakaar naa ni 4 3 cinq 2 yi ñu tegal moom gisaguñ ci solution ndax mu noo am ay joueurs de classe mondiale yu mel ni yu Sénégal am ñaari match nga tegle ko ci équipe yoo xamante ne nee nañu yaa mën nga am jafe-jafe pour dugal bii ba ba ngay dugal bii sax ñëpp a woon yaakaar naa ni leeral li loolu rek la woon. waaw Omar li lañ leen indi loon seen xibaaru revue de presse jaajëfal leen yéen ñëpp jox leen dig daje ba suba ak jàmm incha allah. jaa ngeen jëf mbokk yi.